ñoom ñoo ko doon dalloo réalisation projet boobu nag ñu ngi ko financé ci lu toll ci juróom benni téeméeri million ci sunu ay xaalis euh, conseil général bu Hauts-de-Seine boobule Conte France moom moo ko financé loolu lañuy fàttaliku ak yeneen xew-xew yu am juróom benni fan ci weeru novembre ak ci wute ñu dellis ñu dellis juróom benn fan ci weer novembre atum 2021 si le docteur Falla Paye kon xaru ca cabinet dentistam ca Sacré-Cœur waaye du moom rek moo ñàkk bakkanam ndax it faat na ñetti doomam li rek tukkee ci ab jafe-jafe gu tar goo xam ne kon dund na ko ci sëyam ak soxnaam loolee gannaaw fukkaat ak juróom daanaka loo xam ne nii mu ngi ko koy dund juróom benn fan ci weer novembre atum 2022 si la ñu xamle fukk mesure ak benn yi nga xam ni kon gouvernement bi jël na ko ngir jàkkaarloog li nga xam ni mooy dund gu metti gi juróom benn fan ci weer novembre atum 2022 am jafe jëm ci mbirum teg loxo journaliste bi di Pape Alé Niang patron bu site Dakar Matin moom mi nga xam teg nañu ko loxo waaye tëj ko prison gannaaw ba ñu ko inculpé ci àllarba ba ngir xibaar yoo xam ne ñoo jàpp ni joxe na ko te waru ko def ndax lii day andi euh, loraange ci kaaraange réew mi. juróom-benn fan ci weer novembre atum 2021 si la Cissé Mariam Kaydama Sidibé génn àdduna di jigéen gu njëkk nga xam moo doon premier ministre ca Mali. juróom-benn fan ci weer novembre atum 2019 ca Burkina Faso am na attaque goo xam ni amal nañu ko jëm ci ab convoi société minière bi di Semafo lu toll ci fanweer ak juróom-ñaar nit ñàkk seen bakkan di ay civil ak juróom-benn fukki ci jëlee ay gaañu gaañu doon attaque nga xam ne ni moo gën a jur ñi ci ñàkk seen bakkan gannaaw ba réew ma duggee ci ay fitna yi nga xam ni ay jihadistes ñu ngi koy amal door ci atum 2014. ñu taxaw ci juróom-benn fan ci novembre atum 2006 ndax si la ñu inauguré hôpital Ndéné Fesca ci département bu Kédougou ci teewaayu président Abdoulaye Wade ak Charles Pasqua bi président conseil général Hauts-de-Seine liggéey bi nga xam ne nag def nañu ko financé ko ci atum 2000 mu toll ci 600 millions ci francs CFA conseil général des Hauts-de-Seine amal ko. lan mooy teyu hôpital Ninifécha googe nu mu toogee gannaaw fukkat ak benn ka nga xamee ni kon kii di Viviane wadd ak kon borom këram di maître Abdoulaye Wade jóge nañu ci bopp réew mi ñu teewlu reportage bu Ibrahima Jabaxate ñeenti fukki kilomètre ak juróom moo dox ci diggante commune bu ko ak hôpital bu Ninifécha ginnaaw biñ ko inauguré ci juróom-benn fan ci mois de novembre ci atum 2002 hôpital Ninifécha dafa daal di dox ab diir mu daal di tëj ci fanweeri fan ci mois de juin ci atum 2013 donc euh, soo gisee loolu temps boobu ñun dañu ne woon léegi alhamdulilah euh, du ñu doon xalaat sax ëllëg dañuy dellu dañuy dañu doon dellu si waat fu ñu nekkoon premier. mais nag hôpital bi mu ñëwee ñu ferme ko léegi amatul moyen pour dem Kédougou yëpp arrêté commencé noon mine su kuy dem Kédougou oto ngay jël di dem léegi nag booba oto amatul pour nga dem problème la man jot na yóbbu ay yu feebar ak moto. mu gaañu eh, xale bi Bandafassi il fallait que maa woote Kédougou loué oto pour ñu mën a indiwaat néew bi donc bu ñu gisee loolu yëpp ñu ne vraiment nu ñu tëjee hôpital bi vraiment dañ ngi ñu loor ñu ngi ñu sonal mu ngi ñu dellu fu ñu nekkoon ba ñeneen ñi au lieu comme mënuñu dem mënuñu def dara lan la ñu doon def ñu dem di faju ci tradipraticiens yi. biñ ko érigé en poste de santé ci lañ ko boole ci district sanitaire bu Kédougou waaye tey melokaanu hôpital bi moom ci gën dayoo. bon loolu def ma métti. hôpital bi nu mu melee ni noo soo ko gisee bâtiment bi nga gisoon première bi ak léegi du benn ku xamoon temps soo ko gisee euh, heure bi moom vraiment euh, sa xool day day jeex man jëm na parce que hôpital bi bu ñu ko tëjee ñu ñëw ubbiwaat en 2014 bu ñu ko ubbiwaat en tant que poste de santé man sax du ma doon nangu woo poste de santé parce que dafa ma doon métti ba ma man bàyyi du ma woo de santé tour boobu soo ma ko waxee du ma ma man hôpital bi laa bëgg bëgguma dégg poste de santé. biñ ko tijjiwaatee ci atum 2014 coppite bi ñu fa amal jëlee ko hôpital de Pointe indi ko ba poste de santé indina nay jafe-jafe yu bëri ci askan wi di yeewoo ci diwaan boobule. donc jëm nañ defar euh, bâtiment bi couler ko comme mu ngi doon seen ñu ñëwaat encore couler ko mu ngi seen toujours donc jour bu ma métti ba ma jël décision pour ma paree beneen bâtiment bu taxaw bi. ba mu ñëwee fekk ñi nga xam ne daa amoon sibiru ah médecin bi di ko xool ndox bi mu ngi mu ngi toog ci moom gis gisol lool mu ngi sedd ku ku yoree sibiru yéen da ngay sedd da ngay am fièvre loolu yëpp ma ne no léegi bâtiment bi il faut que ñu abandonné bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu rus fole ci commune bu Nenefécha li tolloo ci ñaari téeméer million ci sunu xaalis la kii di ancienne première dame madame Viviane di génne pour tabax hôpital Nenefécha ci ñeenti hectare moom ak partenaire am yi yi jóge Nanterre te ñu ràññi si conseil général bu Hauts-de-Seine te ki ko jiite woon di Charles Pasqua merci Ibrahima Diaba Khaté euh, Chérif euh, dañuy faral di gis par exemple ay poste de santé wala centre de santé yi ñuy dem di leen ériger ñuy nekk ay hôpital dolliwaat leen waaye liñ fi nemmeeku beneen sens bi la mu demoon ba am ay jafe-jafe hôpital Néné Fesha bi ñun ñëw indi ko poste de santé mu nekkoon loo xam ne en son temps bañ koy inauguré nit ñi rafetlu nañ ko surtout ci zone bi mu nekk ak nombre de peut-être population yi nga xam ne moom la doon polarisé jamono jooju. oui l'idée en soi mm. est bonne parce que tabax hôpital moom lu baax la mais xam nga fois aussi caprice su xëy na première dame yi moo taxoon ñu def lii parce que defoon ko Kédougou moo gën a ne yelloo nga def ko ci àll ba nga xamante ne gis nañ les conséquences hôpital baa ngi nii milliards yu bëri yeen ca def mu yàqu gouvernement bi tamit ñëw ci mbiram politique au lieu ñu def continuer ko continuer woon ko ba gis nga ko euh, daanaka jaan yaa kii ñoo fa nekk di tax taxawaal moom moo tax quand ma madame première première dame bu doon def nañ étude ba ca war d'impact mm-hmm. Mm-hmm. waxtaan ak les spécialistes de la santé mm-hmm. ñu def ko biir Kédougou nga xamante mooy capitale régionale bi a amee impact que nga dem ba ca àll ba di ko fa def parce mais gis nañ quand même les premières ak seen fondation yi des aussi bu ñu def benn affaire duñ seen seen xalaat wala seen kii la jiital moom moo tax quand même les conséquences sont là ce qui est malheureux parce qu'on a perdu des milliards pour rien alors que mënoon na gën a jëriñ askan wi parce que hôpital bi on dit que am na ñu doon jóge sax ba ay Guinée doon fa ñëw di fa faju si hmm. mais bu nekkoon Hmm, merci beaucoup. Euh, waaw xanaa yokk ci rek ni c' était un hôpital de dernière génération euh, ba koy Viviane Wade di taxawal. Hmm. moom ak ay partenaires am mi ngi amoon bloc opératoire am euh, également maternité avec hospitalisation. Hmm. am benn salle boo xam ni pour les opérés récents. am également case de soins am chaise dentaire. am également ay logement pour les médecins ak les infirmiers mu nekk kon hôpital boo xam ni muccoon na ayib waaye ba ñu ba Wade perdre le pouvoir euh, da ngay gis ni même vision mondiale en 2014 moom moo tax ba ñu def ko poste de santé. loolu nag mu nekk lu doy waar ci maanaam ni ñuy gisee ak peut-être les projets publics. Mm. Euh, destinés ci askan wi. Mm. souvent ni muy mujjee. boo seetee ñu ngi ci wax Charles Pasqua Charles Pasqua nag je pense ku ko wax en France sa xel mm. day dem. ci les la loi Pasqua nga xam ni voilà moo doon euh, koo xam ni euh, moo indi woon nekk ministre de l'intérieur boo xam ni dafa durciroon les lois sur l'immigration moom moo fa. commencé woon les contrôles d'identité moo commencé woon également mm. di euh, buntu xataal entre entre guillemets nit ñi ñuul ñi mm. ba voilà ñu ci bëri dañ leen a mm. mujjee rapatrier parce que mm. ci contrôle d'identité yi lan leen jàpp directement avion nga ñibbi sa réew donc Mortal, voilà pour ce rappel personnage sulfureux <laughs> mais bon voilà merci beaucoup Mortal pour ce rappel ñu jàll ci xibaar yi ñu tënk ko